xëy na ñoo jiite doxalinu réew bu loolu amul jullit yi nga xam ne ñu ngi sàmmonteeg li leen yàlla digal nga xam ne ñu ngi jànkontee ki coono ci daara di ci def seen yéene la leen ca fekk bariwul ngallaawaay nañu leen bàyyi xel di wax ne kat dafa am loo ca bëgg a doxalee wala yoo ca bëgg indi te jiituwul nga diisoo coog caag ñoom ñi nga xam ne ñoo ko yoroon te di ci def seen coono ak seeni fitna di ko liggéeyalee yàlla ndax day lu ñu sañ ta kon xëy na loola moo doon li gën moo doon li gën te ñu xam ne daara dafay defar nit daara du yàq nit bu ñu jéemoon a recensé am statistique yu leer ñi jaar ci diine ak seen melokaan ñi jaar ci daara ak seen melokaan ña ñu ca yar ak ña ca jaarut daañu xam kon liggéeyu daara mu mel ne kon dafa boo ñëwee rekk jël benn tomb am noo ko jàngatee mën naa firi leneen rawatina loo xam ne xëy na ngir jubbanti la xëy na punition lañ koy jàppee ndax loolu ñu waxoon léegi li sëriñ bi wax mën na am boo ko yarul foofa bu dee jëng gi ñuy wax xëy na lu ne mënees na koo waxtaane fi jamono toll ndax mënta am yeneen anam yi ñuy def ba gone gi du génn du daw ndax mën mënta am yeneen anam yu ñu puniree gone gi waaye loolu du keneen moo koy xalaatal daara di ko ko imposer xëy na ñooñ daara seen biir ñoo ko war a waxtaane wala ku ca ku leen ca bëgg a dimbale nga ñëw diisoo ca ak ñoom waaye dafa mel ne yare gone ci noona ci tënk gi ñuy wax mën na am bu màggee dana ko musal ci ñu jéngu ko di ko tëj ko ci kaso te ñu xam ne nag bari na yeneeni anam yu ñuy dénk tënk yu ñuy yu ñuy jéngee ay gone ndax prison wu mineur yaa ngi fi gone yi gën a ndaw am na loo xam ne bu ñu ko defee bu leen yoon tegee loxo dañ jëng boobu lañ leen di def kon nañu bàyyi xel daara te xam ne gone gi waaye jur wi bëgg a sàmmonteeg àq jooju suñu boroom wax ba dugalal doom dugal doomam daara citoyen la gone gi citoyen la war nañ leen a taxawu ngalawaay quatre-vingt-quinze pour cent bi ñuy wax ci lim bu mu méngoo ak cinq pour cent ci ay àq ak yelleef ak cig yëg ci lu baree bari kon ñi ngi ñaan mbokk yépp ñu bàyyi ko xel processus boobu ginnaaw bu bu gone gi juddoo la ca war nga defal ko ko ginnaaw tur wu rafet jàngal ko alquranul karim am na yeneen yoo xam ne dana dimbale ci yar gu rafet goowu dana dimbale ci gone gi mën a am yar boo xam ne yar bu rafet la loolu mbokk jullit yi daf cee bokk yarin wu rafet maanaam gone gi ngay yar nga fexe ba di ko yar yarin wu rafet fexe ba di ko bañ xupp xupp goo xam ne gu ëpp lay doon wala di ko di ko tiitalee loo xam ne mën na kaa jural yeneen jafe-jafe bokk na ci liy dimbale ci yar boobu dañ wax yar xëy na baatub yar sax war nañu delloo ci fu mu jóge ndax li ñu waxoon léegi na yar mënta ñàkk ci nit ki lay nekk yar ci moom mën na am bu jaaree fa mu war a jaar mooy mbañum rus mooy rus na way juróom bii ba du def lenn li mooy am na lu mu jomb ci boppam balaa yar bi nga xam ne moom lañuy jëfandikoo léeg-léeg ci gone yi di yegsi booba moo jiitu kon gone gi way juróom war na koy tàmmal di ko won ak nawloo gone dañ koy yar mënta ñàkk mu def njuumte waaye bu defee njuumte yoon wu njëkk danga koy tan bii danga koy xamal ne lii kat njuumte la lii jaaduwut lii matuta def ndax dóor yu bari du mooy yar gone ba leen bokk na ci àq yooyu fexe ba ku ci yàlla may njaboot gu limu nga di leen yemale di war a bañ a jël kenn teg ko ci kaw keneen ndax loolu yëpp am na loo xam ne mën na koo jur ci bopp gone gi bari na ci yox yoo xam ne dañ koy néewal te lu ci mat a bàyyi xel la mooy gone gi fa mu gënee nekk gone nga koy tàmmal col gu yiw tàmmal ko bañ a wuññi ay awraam loola danga koy teel a euh, tàmmal gone gi mu gimmiwaale ko kon ñi ngi eggal li des ci waxtaan wi ginnaaw nodd gi aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li saa'iri almuslimin kon mbokk yi ñu wëyal ci li ñu doon wax ci ay ci ci ab yar moo tax ñu waxoon ci njàlbeen ne processus bu gudd la boo xam ne lu jiitu lu ne am lu ca topp waaye lu jiitu lu nekk lu war a jiitu dana mën a woyofal la ca topp kon gone gi noonu mu ñëwee ci yow nekk bind bu set bu sell lépp loo ciy jëfandikoo war nga ko xool war nga koo bàyyi xel noonu ñu ko waxee ci ak col ndax col gi la lislaam digal munoo koo bàyyi di solal leneen gone gi mu tàmm ay cëram di génn ba ba ba mu mag màgg nekk mag walla mu majeur nga bëgg ko koo bàyyiloo du yomb day fekk ne lële tàmm na ko ba noppi am ci yoo xam ne war nañ ko bàyyi xel ci yar ci kër yi bu dee gone gu góor la yoon saa salaam sax waxoon na ni digal leen seeni doom julli ci juróom-ñaari at wax ne bu ko weesoo ci fukk nag mën ngeen a taral ni ngeen leen koy digale waaye teqale teqale leen doom yu góor yi ak yu jigéen ñi ci tëdduwaay ba waaye kon daf cee bokk sax ci doom ju góor nga fexe ba mu bañ a baril ak jaxasoo ak barab yee jigéen ñi di nekk ndax yooyu yëpp mën naa bàyyi jeexital ci moom bu ko jural leneen ëllëg loo xam ne mën naa yàq lu bari ci dundam kon ni ñu ko waxee yar lu jafe la rawatina nag ci jamono jii ñu ne jamono jii nga xam ne léeg-léeg nga jubloo yar sa doom mën nga ko wutal way jëru sell bu rëdd ku turu rafet jàngal ko diine la mënta ñàkk waaye yar boobu boo ci jawul sa bët mën na am yeneen yoo xam ne dana ko xëccoog yow dana ko xëccoog yow léeg mu doon ci yi ñuy jëfandikoo léegi te mucc ci jafe lool moo xam li ñuy tuddee média la ak ya ca aju moo xam li ñuy tuddee internet ak ya ca aju ci ay réseaux sociaux yoo xam ne lépp dafay jeexital ci gone gi ngay yar bàyyi xelit beneen tomb muy bu ñu waxee yar éducation tarbiya nga xam ne léeg-léeg ñu dugal ci ni nga war a instruire gone gi jàngal ko muy ensegnement wala taalim foofu itam léeg-léeg boo jawul sa bët faka gone gi di defee mën na am mu am lu mu soppi te na nga bëggoon mu mel ni kon yooyu yëpp léeg-léeg barab barabu jàng jàng jàngukaayi jàngukaay yi école léeg-léeg média bi léeg-léeg réseaux sociaux yi ak yeneen yoo xam ne lu ci nekk boo jawul sa bët mën naa xëccoog yow gone googu ak yar ba nga ca bëgg a def kon lu am solo la moo tax mbir la moo xam ne da koy topp rek te di ñaan suñu borom mu defal la ca la nga bëgg bu yooyu weesoo waxoon nañ bi ñuy wax jàngale alquran jàngale diine ci la bokk nga jàngal ko diine jàngal diine boobu la mu war a xam ci ay faratam ak la méngoog fa mu toll jàngal ko am aqida pas-pas gëm yàlla ak la ca aju la méngoog fa xelam toll def lu baax ak la ca aju di ko xiirtal ci ay jikko yu rafet loolu yépp dina dimbale gone gi mu mel ne beneen mbir itam léeg-léeg dinañuy faral di wax wala am na ñu koy jëfandikoo mooy gone du toog ci biiri mag gone du toog ci biiri mag xëy na du waxtaani mag yépp la gone war war a déglu waaye gone bu toogul ci biir biiri mag anafan lay yaroo ànd jikko yooyu kan moo ko war a def ci moom ndax mbedd mi la dem leen fo yi dañuy waxtaan gone damay wax ne mbedd du palaasam dénkaane suñu boroom la bu mu defar ba mel na na gën a mucc ayib mu jox la ko bu la koy bis bu la koy laaj itam war ngaa fexe mu mel na gën a mucc ayib kon gone mbedd mi du barabam mel na loolu itam jafe-jafe la bu ñu war a bàyyi xel léegi la nga gis gone guy foo ci mbedd mi ab doxam sax du dëgër wala mu génn àndul ak wayjur ak yu baree bari yu ñuy jàmbat ci jamono bu ñuy wax ca sàccum gone yi bu ñuy wax enlevement yi dëgg la mën nañ poser problème mu sécurité ak ñu ko yor waaye balaa booba njëkkeel ci li la war muy gone gii la yàlla dénk te di la ko laaj nanga fexe ba sàmm ko nanga fexe ba ar ko kon jikko yooyu boo ko defee ci gone gi nàmpatal ko ci jikko yu rafet ak teggin fexe ba mu sàmmoonte aki teggin ak lawar ci teggin teggin ak xaaj yi ci nekk ni mu limoo moo xam adabu zahir wala adabul baatin bi war sa digg ak mbindéef yi bi war sa digg ak sa boroom bu dee mbindéef yi bi war sa digg ak ki la mag sa digg ak ki nga mag ak sa diggante ak ki nga maaseel kon teggin boobu bu yar bi matee fa nga ko war a jaarale mu jaar fa nga nampatal ko ci jikko yu sel yooyu mel na ni kon dana am teggin te xam ngeen ne teggin day nit ki mënte jëriñu fii ak amu ko ñoo tax itam ñu bàyyi ko xel ba gën ci xirtal gone yi waaye itam ñu bàyyi xel ne bi ñuy wax wayjur wu sell kama yaqulu la arab faqidu shay'i la yu'tihi kon wayjur wi jikko yu rafet yooyu col gu jot googu melokaan wu rafet bañ a wax lu dul dëgg yooyu dafay njëkkee ci way jur wi am na ñoo xam ne léegi léeg xëy na duñu ko bàyyi xel daañu def dara ci kanamu gone mu mel ne dañ leen xiirtal ci leneen ci wax lu dul dëgg walla yu mel noonu te gone ni mu sellee ak ni mu mel moo tax li ñuy wax maanaam yar dëgg la dana am ci ci wax waaye dana am ci jëf maam maanaam l'éducation par exemple nga xam ne yow sa melokaan ngay njëkk a yare bala ngay yar ci sa wax te gone yi dañu dañu am xel léeg-léeg nga tere gone dara boo ko wëlbati def ko danaan la du yaa waxoon ne nangam baaxul kon wayjur mooy école bi njëkk boo xam ne gone daf ciy jàngee rawatina wayjur wu jigéen teggin boobu ñuy wax nga jaarale ko fi nga ko war a jaarale mooy tax mu mën koo am te wax nañ ne teggin nit ki mënte jëriñu fii ak amu ko is kul man bi gayrihi raama tibaa fa innahu yuxramu fawzan wa intifaa képp koo xam ne daal jublu ngaa jaamu yàlla wala topp sunna si yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci lu dul teggin na nga xam ne ak texe ak ak jëriñoo ak jëriñu moom doo ko am ca làmboo ak i teggin kon ñu toqi gone yi ci teggin ndax lu am solo la bokk ci solo ci solo teggin mooy li annahu munawwirul janaani kama yuqarribu ila al jinaani teggin googu dafay setal xol daf koy laabal ni muy doxee diggante wala ni muy taxee ni muy jegeelee jaam bi mu tàbbi aljanna wa yujibul madxaladal jiiraani dana tax ba sag maas wala say dëkkandoo daañ la wekk dana am fu ñu la teg kama yu baaxidu an niiraani loolu nag teggin moo ko teggin moo ko mën a maye yooyu ñoo xoon diggante teggin diggante nit ki ak moroomu nitam te loolu yépp ci yar da mën a jaare wajal saxiranaa yuwaqiru lkabir wajal kabiranaa yuiinu lissaxir yonent bi saa sallam moo waxoon ne samaw xeet du jóg ci aw yiw fii mag ñi ñu ngi yërëm gone yi gone yi di wek di wek mag ñi yërmande gi mag ñi di yërëm gone yi ñu yar leen yar bu rafet ñu ànd ak ñeewant ci ñoom te sore lépp luy violence ci la bokk boo wegee ki mag yërëm ki nga mag ki mel ne kim nga maaseel nga def ko ni sa bopp lu am solo la mu mel ne bu ko ñëpp sàmmoonte woon ak moom dunduk àddina gi dana gën a yéwén mooy fi muy waxaatee ne waqir saxiirahumu wala waqir kabirahumu warxam saxiirahumu wa raay fi kulli xalqin xaqa man xalaqa wax ju am solo ju mat a ju mat a settantal ju mat a bàyyi xel wegal ki la teg wa raayi fi kulli xalqin xaqa man xalaqa mbindeef bu mu mën a doon loolu moo gën a yaatu moo gën a général nee na bindeef bu mu mën a doon sàmmoonte ci ak àqi suñ borom mi ko bind bindeef bu mu mën a doon na nga ci sàmmoonte ak yàlla bi ko bind donte bindeef bu doyee la boo ci sàmmoonteeg ak yàlla danga xam ne yàlla moo gën a màgg lépp mbokk jullit yi kon yar daal mbir la moo xam ne responsabilité la ci way jur ëllëg yàlla dana ko ko laaj jur wi warta gaaw a teggi loxoom ci yar moo tax mag ñi daan nañ leen yar yarin woo xam ne da nga ne dem ba nekk mag nekk kilifa nekk sa njaboot waaye ka la doon yar ba tey noonu ngay woyee di ko bàyyi xel te ñu bàyyi xel gone yi ak fi ñuy dem jàngukaay yi bu dee mënta ñàkk ndax bépp xam-xam am na njëriñ ginnaaw xam-xam bi nga xam ne mën mënta ñàkk nag mooy xamal ko alquran jàngal ko diine mu xam faratay jëmm xam-xam bu am njëriñ bu ne baax na wa kullu ilmin bi manafia yafi waaye ñu bàyyi xel nañuy topp gone yi ci école yi di xam yan condition lañ fa nekke ndax léeg-léeg am na lu mën a teeyal xel ci yar ba ngay yar dama koy faral di wax bu fekkee dañ ne dañuy sensibilise xale yi ci yenn jàngoro yi bëgg cee jaare nag ba nga xam ne buñ leen dee sensibiliser dañ leen di wax ne nangeen wattandiku jëflante ci wàllu sëy te te te te fegu woo xam ngeen ne loolu du yaru lislaam yarul lislaam de mooy na ngeen ko wattandiku fi ak dugg leen ci néegu sëy yi may wax nag yu am la am na ci am na ci centre sax yoo xam ne dañuy wax ne yée dañuy yee gone yi ci yooya waaye mën na am leneen mën na caa dugg kon ñu bàyyi ko xel yàlla nañu yàlla gën a dimbaleel boppam ba ñu yar suñuy njaboot yar goo xam ne bu ëllëgee buñ teewee suñu kanamu suñu borom masuuliya boobu bu ñu koy laaj dinañ mën a euh, wàccoo ak loolu yàlla nañu yàlla dimbale ba suñu njaboot bokk ci qurrata ayunin yàlla nañu ko yàlla defal wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam